nan nga gisee le candidat de de de, de Benno Bokk Yaakaar qui est en même temps premier ministre du Sénégal. comme li ma wax rek cest à am Amadou Ba am na ay chance gagné mais dafa am facteur yoo xam ne faw mu dajale ko pour mën pour mu mën a gagné. lesquels. bi ci njëkk mooy parce que Benno Bokk Yaakaar du ñu noppi ñëpp a nangu il faut nga xam loolu. lu ñu ñëpp lu ñuy ñoppi ñëpp nangu foo ñu xam ba xam benn bokk yaakaar dañuy tegandoo di dóorandoo il faut ñu xam ba ban niveau le président Macky Sall di impliqué woo ci candidature am il faut ñu xam kan mooy doon candidat Pastef loolu c'est très important parce que Pastef li muy jël ci électorat bi dafay jouer ci élection bi il faut ñu xam ñaata candidat ñoo jàll parrainage bi par rapport ak voix yi ni muy tase est-ce que dégg nga baax li ma la enfin il faut ñu xam population électorale Sénégal parce que les gens électorat Sénégal du Benno Bokk Yaakaar je suis désolé du Aminata Mbengue Ndiaye du Moustapha Niass du ñooñu ñëpp je suis désolé jeunes yi nga xam ne ni 80 pour cent de la population Sénégal amuñu cinq ans loolu mooy électorat Sénégal naka la jeunesse boobu di accueillir candidature Amadou Ba gis nga éléments yi ma la wax noonu tant que tey ko soo taxawee naan Amadou Ba dafay gagné mooy yaa ngi nax sa bopp il faut nga maîtriser paramètres yooyu ba pare au-delà de Pastef c'est très important c'est-à-dire. au-delà de candidature Pastef yeneen candidat yu am doole yi yan pourcentage nga ñuy def ñaata la xalifa Sall di def ñaata la candidat PDS waxuma Karim Wade dama ni candidat PDS ñaata lay def est-ce que soo ko historique PDS dañ koy topp wala déet. est-ce que PDS dina am candidat donc c'est équation a plusieurs inconnus xam nga baax na ma la maanaam xeex dëgg la. boo xam ne bu ko Amadou defee mën na gagné. alors d'ailleurs maintenant bon il a son facteur personnel mën na ko jariñ bu baax ci combat bi parce que bon Sénégal fi ñu toll nii soxla nañ ku leen rassurer surtout ci coow yeeg problème yi ñu jóge yëpp réew mi soxla nañ ku leen rassurer te amadu nit ku dal la nit ku yaru la te nitu jàmm la. xaw ma dina jot ci nguur gém déet mais bu ci jotoon dina boole Sénégalais yi bu soppeekuwul comprendre